asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit ñi seetaan di ñu déglu ndigal bàyyikoo na ci xalifa général di murit sëriñ tubaa seex mouhamadul muntaxa ñëw ci seex mouhamadul basir mi nga xam ne moo toogee jataayu maam Thierno Birahim ñëw ci alaaji maam Thierno Mbakke may xalifa sëriñ seex awa balla Mbakke ñëw ci sëriñ moodu mahfous Mbakke moom sëriñ seex awa balla xeli fa soxna Maymuna Mbàkke bintul Xadim borom laylatul qadar di waajal nag bis bu am solo bis boobee nga xam ne saa yu weer koor teroo xel yëpp ak xol yëpp ak xalaat yëpp dëgmal ko muy bisub laylatul qadar mu war a nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril yemook ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor ñu di ko amalee ci Touba Asalem ak ci Touba Mosquée kër soxna Maymuna. laylatul qadar nag bis la boo xam ne bii àddina bépp maase na xam ko. te soxna Maymuna gannaaw yàlla ci moom la jaare ba bu ñu waxee laylatul xadar ñooy jox soxna Maymuna kon soxna Maymuna bisam boobu ma daan def di ko woote fii ci te Daaru Waab muy dem ba njëkki Touba at muñ ko defee fii sëñ Saliou Mbacke dikk na fi ak Cheikh Mouhamadou Mourtala ak ñu bëree bëri ci ñëbatu sëñ Touba ndax soxna si lu mas a nekk wàgg sëñ Bamba gépp nekk ci gannaaw loolu nag noo ngi soññ nag ñi nga xam ne ñoo di taalibe Serigne Mahfouz yi joore tool yi àllarba ak yi jëwriñ président daayira ak ñoo xamante bi dañoo bokk di liggéeyal sëñ bi déglu ndigalam yaakaaruñ kurul moom àdduna ak alaxira tey ñaan ci barke sëñ Bamba ak borom daaru ak sëñ Modou Mahfous yàlla na ko fa yàlla yàggal te wér ko taalibe yi daal foofa taalibi mën a nekk ci góor di jigéen di mag di ndaw ci biir réew mi ak bitim réew sëñ baa ngi soñ ñëpp di xam le ne daal kenn ku ne ñëw te bu ñu ñëwee ne ñëpp kenn ku ne jàpp ne yaa war a defar bis bi foo féete ngay defar bu ko defee loolu tax bis bi mel ni ma war a mel ba sëñ ci li mu bëggoon te kon mooy bëgg soxna yi moo na jërë mu teroo sëriñ bi tàmbali na ab liggéeyam ni ko soxna si daan defe muy jàngalu alquran ak jàng xasida ak salaatu ala nabi lépp mi ngi koy santaane ndax soxna si ci la daan dàkk dàkk bëggu sëriñ bi daan ko ci liggéeyal sëriñ bi itam di ko soññee ci daaray kaamil yeeg jàngkati xasida yeeg bayiwul kenn ak fu waay man ne fii ci réew mi ak bitim réew lépp lu ci waay man na ko def ndax sëñ Tuubaa rek lañu koy liggéeyal nee na itam e, mi ngi soññi daayira yi ci des muy dëkku boppam bee di Daaru waxaab ak dëkk yi ko war ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññi bu dee Tuubaa gi nga xam ni daayira yi fi ne sëñ Jaga leen jiite nee na mi ngi leen di soññi waa Madiane ak soppee soxna ma yi daan ñëw ci bis bi ne ñëpp ñi ngi leen di soññi waa dëkk béet waa koñ bii di aslem gii mu téete ñi ngi leen di soññi fu ci waay mën a ne na nga ci jàppate xam ni liggéey la boo xam ne sëriñ Moodu day jëwriñ ji waaye liggéey bi nun ñëpp noo ko séq ndax sëñ Tuubaa ñu liggéeyal soxna may sëñ rek la doon liggéeyal ñi ngi soññi itam daayira nga xam ñoo nekk bitim réew ci diggante jàng alxuraan ak jàng xasida ndax réew mi liñ ci man lépp ñi ngi koy def ci daara kaamili ñi nga xam ne sëñ bi jot naa agsi ci ñoom nañu ñi ngi leen di soññ ñi nga xam ne jotuñu agsi ñoom te ñu yor ay daara alxuraan it nañ jàng ngir jëmmi doon ko liggéeyal seex seexu naa seexul xaddim te loolu rek moo doon bëgg soxna si maa ngi koy yëgal ñi ma bokkal xasida yi ñëpp di ko tàmbalee ci suñ jëwriñ ji sëñ Aliou Diop daayira xidma ak mbooleem kuréel yi ci réew mi ak foofu duruskat nekk bu dee duruskat yi sëñ Abdou Guèye Rijaal daaray fulku ji ñu ngi ko koy fàttale ak lim jaboote di ko fàttali tamit eh, kuréel Mafatihal Bichri bi am sëñ Cheikh Fall ak sëñ Xaadim Diop Naim ak sëñ Xaadim Cissé seq ko ñoo ngi leen ko yëgal di ko yëgal suñ bokki jànkati xaside yëpp duruskat yi buñ xëyee nañ koy yendoo bu guddee tamit noonu lañ ko bëgg a fanaane ànd ak ñaagum njëkkati ci ndigalal sëriñ bi noo ngi ñaan nu fekke ko tatal ci barkeb xasida yi sëñ Tuubaa soxna si dafa wax ne bisam bii bis la boo xam ne xam na xel ne yàlla gërëm na ko sëriñ Tuubaa gërëm na ko ko yàlla nar a gërëm sa jëf rek moo ciy jëf daayira yi itam xamee ko noonu di ci jëf maa ngi sañu sa bopp nag ci daayira yi di leen soññi di leen wax ne bis bi seen bisa kenn jiituwu leen ni jiitu luñ ci kenn teg leen ci ma bëgg niñ cee daan ñëwee ci kër soxna si buñ ko masaa def ak ni ñëwee fii ñu fexe di teel di yaatalante ca bañ di xat-xatloo genn xatloo gu metti gi ndax yéex a waaj jóg yi moo koy waral bu ñu xamee ne bis sàngam la bis bi rek xat-xatloo gi mën naa ñàkk nañ teel a waaj ca xam bis bi seen bise teguñu ko ci yenn loxo jëflewuñu kenn desal leen gën dañuy soññaat rek daayire yëpp ci ndigal li nga xam ne moom la ñu soxna may daan jox te njabootam gii jox ñu ko muy ñu war a taxawee bis bi taxawaay bu rafet a rafet a rafet mboolem kuy ñëw ñu jàpp na suñuy gan lañu yaatal gan yi te xam ne kilifa yi li ñuy jox danoo bëgg ñu jox ko gan yi ndax soxna May saabu bu bët masaa set la muy njëkk laaj mooy mbaa xéewal yi doy na ñu ne ko waawaa Mbàkke mu mbaa joxe nañu lépp ñu ne ko waawaa Mbàkke kon nag loolu la ñuy soññaat suñu bopp di ci soññi ñëpp yaatal gan ñi koo gis rek nga jàpp ne yaa ko war a teral su daayira yëpp doxee noonu kenn ku ne jàpp ne yaa ko war a def rek li nu bëgg dinañ ko am di soññ nag kuréel bi nga xam ne ñooy kuréelu xasida bi nga xam ne itam ñooy nekk ca buntu kër sëñ Fallou di fa jàng muy kuréel Touba Sandaga di soññaa itam kilifa yi nga xam ne ñooy ñëw fii asalem di taxawu liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoo koy taxawu fële ci kër soxna si ñu ànd koog daayira Sandaga ak daayira Géejawaay ñu ngi soññ suñ bopp daal di soññ ñëpp te xam ne kenn ku ne ci ñun bu jàppee ne rek bis bi yaa ko war a defar su ko kenn ku ne jàppee noonu rek li ñu bëgg ci bis bi dinañ ko am. Serigne Bassirou Anta Niang nee na mi ngi ciy soññi mboolem taalibe bi borom Daaru Muxti yëpp ak fuñ mat di nekk ci àdduna ñu xam ne bis bi bis la ndax soxna may kat eh, ginnaaw bi nga xamante ne nekk na ci eh, ronu kippaaruk Seexul Xadim ba noppiit it da ko jébbalaatoon borom daaru mu nekk moom kon léppam borom daaru la kon lu ñuy def ci ay njabootam njabootu borom daaru ñoo ko taxawu ñoo ko war a taxawu ñoo ko war a sàmm ñoo war a fexe ba na ko sëriñ bi bëggee mu mel noonu kon sëriñ bi nee mi ngi ciy woo njabootu borom daaru yëpp ñu dikk ci eh, ba ca desit lu jar a màggal la ndax léegi rek ci yoon yi maa ngi koy wax ma ne jigéen Euh, am na lu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon am na loo xamante ne bu ko sàmmee sàmmi julli juróomam euh, sàmmi as sàmm asakaam sàmm kooram topp ndigalul borom këram bu dee dem àjjana kon moom àjjanaam yomb na waaye ñu gis pas-pasu soxna may mu dem mu mel ni dafa romb loolu lépp ndax tey bu màggalaloon soxna jaara kenn du ko laaj bu màggalaloon sëñ Tuubaa kenn du ko laaj waaye jigéen ju am pasteef tegu ci diine tegu ci lislaam ba mën a xool guddi gi nga xamante ne suñu borom wax na ne moo gën a màgg junniy weer nga di ko màggal loolu pas-pas mënu ko weesu kon pas-pas bu dëgër boobu nag la ñuy soññi ñëpp war naa tax ñëpp jàpp ne xam ne kii kat ku nekkaloon yàlla la xam ne nituk yàlla la ku ko nekkaloon koo xamante ne nekk gu amul benn werante la ndax bu ko bu ni ma koy wax bu ko màggale woon faneen rek mënees ko tudde na neen ndax màggal yi bari nañ ci waaye nag koo xamante ne am nga pas-pas ci diine am nga pas-pas ci suñ borom ba tànn bis bi gën a màgg ci bis yi nga di ko màggal loolu pas-pas mënu gën a weesu kon ko kenn ku nekk xam ne ne sàmmonte woon ak diineem sàmmonte woon ak ndigali Serigne Touba waaye sàmmonte woon ak ndigali Cheikh Ibra Faty mi ñu ko boolee lan bis bi bisub Daaru Muxti la ñoo ko moom ñoo ci war a jiitu Serigne bi kon nee na mi ngi ci soññ ñëpp fu ci waay nekk bu ba mu jeex nga door a dellu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen nuyu nuyu bu ànd ak yar ak teggin bàyyi sunu sëriñ alaaji maam Cerno Mbakke xalifa suñu seexu Balla muy woo bépp taalibe ci bis bi nga xam ne mooy bis soxna may ndax soxna may kat mooy cërub sëriñ Tuubaa ci kërub cërub sëriñ Tuubaa ci kër suñu seexu Balla mooy cër kon nag ñu ngi ci woo ñëpp bis bi ba koy sos ma nga daaru musti kon mi ngi soññi taalu bi nekk daaru musti ak daaru marnaan ak Daaru Wahab ba ci dëkk bii tey nga xam ne capital yoonu Murit mi jox ndigal képp ku aji suñu Seexu Balla ak foo ci mën a ak foo mën a nekk na nga xam ne ndigal bàyyi ko na ci mu ñëw ci yow lépp loo daan ci def ci bis mi ko yokk te xam ne bisa dañ ko waajal bu baax a baax ci jàng alxuraan ak xasida ak berne yi ak addi yi fu taalu bi nekk te mën a ñëw teew si jox na ndigal nga teew si jàpp ci bis bi loo mën boo mënta teew si na ngay def ba sa addi ci bis xam nga ko ci biir réew mi ak bitim réew yëpp ma ngi mi ngi soññ it eh, mboolem dëkkandoo yi ak xarit yi ak wëllër yi jàpp ci bis bi te ku baax ma ngi soññ it ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi di sëriñ sëriñ Seexu Bale daal ko signal yu Mbacké mi nga xam mo moo moo mag ci sët yi ak sëñ Xalil xalif sëñ Modou Mokhtar sëñ Ahma moom sëñ moom sëñ Ateex ñoom ñëpp maa ngi leen soñ sëñ Thierno Mara ñoom ñëpp ñu daan taxawee ci bis bi ñëw ànd ak sunu rakk yi jàpp taxawu leen ci bis bi nañ ko def gor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi sëñ bi daal bis bi na ngeen xam ne fonk na ko lool bépp daayira bu ne ci dëkk bi aju kër sëñ Cheikh Obal ak noo ci ajo rek jox na ndigal loo daan def ci bis bi na nga ko yokk waaye bu jox dara wàññi ko mi ngi woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. yéen mbokki julit yi ñi ngi am mbégte dellusiwaat tey ji ngir di leen yëgal bis bi nga xamante ne bi amuñu lu dul moom mu di bisu leetu xadar loolu la ñu ko def ci ndigalul ak kilifteefu Cheikh Amadou mi nekk suñu ginnaaw tamit te mu ko def ci ndigalul ki nga xamante ni tey jii moom fi Serigne Touba mu di Cheikh Mouhamadou Mountakha di nuyu ak di ziar bu a baax sunu mbokk yi fi nekk jóge Daaru Moxti di leen jubbante ci sëñ ak ki sëñ Maam Thierno nga xam ne bis bi ñoo sëñ Modou mi ñoom ñoo ko bokk te te tëpp benn yoon yéene ñu di ci woo mboolem mbokki jullit yëpp ñu di ko amal le 28 avril fii ci Touba muy dëppoo guddik ñaar ki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ren ji nag sëriñ bi mu demee ak daf ko ne lépp loo ci daa def na nga ko yokk kon ñu xam ne bis bi ren ji noonu la taxawee te bis bi daanañ ko wax fii ñun dañ ci doon dara dañuy sàmm rek ki nga xam ne nag moom moo ko moom sos ko mu di soxna may daa am lu mu ci bëggoon ndax da ko defoon def ko ci ndigalal Sëriñ Tuubaa mu di Cheikh Mor Fadal mu ne ko kat da nga dem ba ci ray ay gilem jël bis bi ca guddi googee def ko ci xoli nit ñi ba nit ñi amatuñ ci sago soxna itam soxna ci tam bëggoon ci jàng jàng alxuraan bëggoon ci jàng xasida bëggoon ci teral bokk yi teral taalibe yi te noom gën a xumb moom moo ko gën a loon te loolu suñ borom may na ko ba tey ji bis bi bokk ci bis yi nga xam ne ci bis yi gën a rëy ci réew mi la bokk kon nag ren jii suñ mën taxaa wax sëriñ mi ne ko loolu daal def na nga ko yokk kon ñu xam ne bis bi nañ ko daan defee ba taw di ñëw gut nu ko raw noonu lañ ko fa yéene defee cérémonie officielle bi lañ ko daan defee lañ ko defee dara du ci manqué mbooloo mi ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di xaar képp ku di murit képp ku di jullit ñu ngi lay xaar daare kaamil yi jànk di xasida yi bàyyiwuñu kenn kon daan nañ xam ne bis bi moom la ca borom bëggoon muy at mu nekk muy yokku sëñ Tuubaa defal ko ginnaawam nga xamante ne bii fi mu toll nii euh, dafa jéggi dayoo sax loolee nag tey ren ji sëñ bi itam boobu taxawaay la amaat kon ñu ngi woo mboole mbokki jullit yi di wo mboolem mbokki talibé yi di ci wotim ñi nga xamanteni bi ñom ñoom ñoo ŋànk réew mi ci wal aduna mu di président de la république ak ñuko ñu koy wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë jëf bis nonu ko waxé rek daanaka man li ci matoon wax lepp sama bokki bop yi wax nañ ko kon nak delu di sant yalla rek di xamal bokk yi ne bis bi mom nun njaboot ak soxna may dañ fee nek nekkal leen fi waye liku tambalé Cheikh Mamadou muntaha ak mbolé njaboot ak seigne Touba eh, ba ca jëwriñam sëñ di Mbacke ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim gépp bis bi seen bisu bopp la ndax soxna May eh, bi mu daan woote bis bi liggéeyal sëñ Touba rek la si jublu woon ànd koog mboolem njabootu sëñ Touba ànd koog mboolem taalibi sëñ Touba kon nag eh, noo ngi koy fàttali ñëpp di ca woo ñëpp na ñëpp xam ne bis bi seen bisu bopp la fas nañu yéene incha allahu taala eh, na ko soxna si bëggee woon daan ko ni defee lu mat lu ëpp juróom fukki at te njëkk muy làqu it bu fekkoon te ne man ak soxna Bali noonu ñu mu fi bàyyi woon jaratulaay soxna Marjama Bousso mi ñu fi bàyyi woon bu sàkkoon ci noonu ngir nu da ko màggalal bis bi bis bi mu fi bàyyi daanu def loolu na ko bëggee bu sàkkoon ci noonu nu defal beneen bis wala bis bi mu feeñee àdduna it daanu ko def na mu ko bëggee waaye li mu sàkkoon ci noonu jox nu ci ndigal mooy guddi gu tedd gii nga xam ne moo gën ci guddi yi te daan ko màggal ba def ko juróom fukki at ak lëf nan ko wéelal liggéey boobu def ko di di ci liggéeyal sëñ Tuubaa di si jàng alxuraan loolu moo sabab bi mu làqu it maag soxna Bali nu sax ca loolu nekk ca nekk ca ba sunu borom jëfandikoo la ko sopp ci soxna Bali njabootam gii fi di sama di samay doom yi it ma ànd ak ñoom ci liggéey boobee noonu yi ko soxna si bëggee woon ak noonu yi ma ko ànd woon seen wajur kon nag loolu rek lan ñu fas yéene wéyal di ci woon di ko yëgal bokk yëpp mbokki Tuubaa yëpp mbokki Daaru Muxti yëpp mbokki Daaru Salaam yëpp ak mboolem ku aju ci yoon wi de ko yëgal it mboolem taalibe yi ak njabootu sëñ Tuubaa gépp ndax sëñ Tuubaa njaboot yi mooy njabootu deret ak njabootu pas-pas ñëpp ku ne si ndaal nga xam ne bis bi sa bisu bopp la ni ko Cheikh nga xam ne ñoom lay sunu borom dénk wàllu àdduna teg ko ci seen loxo it ñoom indi leen ko yëgal tàmbali ci président de la république ak mboolem ko sexel di ñaan sunu borom def na ndimbal ak tawfeex di ca di fàttaliku it jàmbaar ji nga xam ne di sëñ Bassirou Sarr rahmatullah alayhi ku ci amoon taxawaay la diirub lim fi nekk soxna si nga xam ne yaari ganaar yi soxna may njëkk a def ab reer jër ak Cheikh Mamadou moom moo dogoon ci ne dana ko def ñaari junni ganaar te noonu la ko saxal noonu la ko saxal ba soxna ba noppee gis soxna si wéer fi fekk sama kanam fi kanam soxna Bali loolu ñu koy ñoo ngi ko ci fàttaliku bu baax a baax a baax di ko fàttali njabootam gi yëpp kon nag loolu rek mooy woote bi eh, daara alxuraan yi nga xam ne. jot nañ sunuy bataaxel jot nañ sunuy barkeel ñoom ñëpp it maa ngi leen soññi si njàng mi ni ma ko waxee ci bataaxel bi kenn ku ci nekk euh, pas-pas boo ca daan am ak taxawaay boo ca daan def ko lépp ñu def ko addi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addi Cheikhul Khadim addi Soxna Maymuna maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, ñi dëkk ci dëkk bi ak taalibe itam ñu xam ne gan gu fi dëkk seen la ñu fas yéene laxasaayu gan gu dëkk ñu teeru teral ànd ak tey ak teggin yéen a ngi jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah la li nga xam ne nag mooy doxalinu bis bi ak taxawaay bis bi ne ma ko baaxoo di waxee lépp teg naa ko ci loxol Cheikh Abdoulaye mi nga xam ne mooy taawub kër gi moo yor organisation bi ànd ak sangam yii di Cheikh Sidi Moukhtar ak ak gone yi yëpp ñu ànd ak moom ci liggéey bi rek ñun fas yéene nga ngeen xam ne noonu ay mag lañu waaye nag noo ngi ñaan ngeen wéyal liggéey bi lépp luñ ci yéene woon lu ma ci daan jëf mag soxna Boye li ngeen fas yéene wéyal di ko def rek incha allahu taala yéen ngeen jëf